di leen gërëm ci seen teewaay di euh, jéggalu euh, ci yéex a commencé bi euh, dix heures lu ñu waxoon ne la ñuy commencé waaye ñu doon xaar ñenn ci yéen ñu egg si ak embouteillage yi donc am nañ fanweeri simili de retard est-ce que dafa am benn jafe-jafe c'est voilà donc ñun waa FRAPP ñoo woote conférence de presse bi ànd ci ak élèves Euh, conférence de presse bi li ko waral nag du jàmm li tax li ko waral di jàmm moo di ne ñun ñëpp yëg nañ ne depuis démb mardi. Euh 4 juillet depuis démb baccalauréat commencé na examen baccalauréat commencé na ci Sénégal depuis démb et donc jamono ji ñii doon def terminal élèves yi doon def terminal ndongo yi doon def terminal ñu ngi def examen baccalauréat te fii ñu toog fii ñu ngi toog ak ay ndongo ay élèves yoo xam ne terminal lañ doon def année bii mu waroon leen fekk ci salle d'examen yi ñuy natt ñuy xayma seen xam-xam xam-xam bi nga xam ne sol nañ leen ko octobre ak léegi au lieu que ñoom ndongo daara ñu nekk ci daara yi fi ñuy xaymawee jamono jii ñu toll seen xam-xam ñoom ñu nekk fii siège FRAPP ak ñun di wax ak askanu senegal lu tax nekkuñu ci daara ji jamono ji ñuy xayma seen xam-xam élèves yi dañoo bokk ci benn ecole boo xam ne ñu ngi koy woowee institut Sainte-Lucie école bi mu ngi tudd euh, institut Lucie Leclerc plutôt école bi mu ngi tudd institut Lucie Leclerc benn ci école yi nekk Almadi ñoom ñu ngi nekk ci école bi nekk Almadi waaye am na yeneen école institut Lucie Leclerc yi nekk euh, ci Sénégal ñu doon def terminal ci classe terminal boobu ñu nekk ci ak seen yeneen naatango ñoom ñu motoon ñeent fukki ndongo daara ñeent fukk ndongo daara ci classe terminal mu amoon ñoo xam ne ci ñeent fukk yi ñu ngi doon def terminal S am ñi nekkoon terminal L boo leen boolantee ñu nekk ñeent fukk li am nag mooy booy def classe terminal day am jamono joo xam ne ci biir année scolaire bi dañ lay laaj frais de dossier ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen caméra est-ce que mën nañu bàyyi ñu def conférence de presse bi après xëy na ñu ñaan éléments yi seen yeneen naataango yi am image yi en fait waxtaan bi laa xamul en fait euh, bu fekkee conférence de presse yi dafa na am waxtaan du neex de. donc euh, bu dee dafa am problème en fait technique nañu xaar xëy na laaj seen naataango yi amul waaw léegi nag bu amulee problème technique gars yi nañu noppi nag tuuti bu ñu buggee waxtaan ñu dem si biti rawatina nag li ñu fi waxtaanee du jàmm comme ni ma ko waxee dafa am jamono joo xam ne ci biir at bi dañ lay laaj nga fay yow élève frais de dossier pour bokk pour def baccalauréat frais de dossier yooyu mu ngi toll ci onze mille cinq cent onze mille cinq cent mooy ñaari junni ak ñetti téeméer élève bu nekk nga nekk classe terminale boo buggee def baccalauréat war nga fay frais de dossier onze mille cinq cent ñaari junni ak ñetti téeméer ñoom fay nañ seen onze mille cinq cent boo fayee loolu ci biir at bi da ngay jot message bu lay wax ne fay nga xëy na ñu jox la xëy na sa numéro ñoom dinañ si ñëwaat waaw message bi xëy na am na numéro euh, yow candidat bi ak fi nga naree def xëy na peut-être euh, ak ñoom seen bi ma defee bac yàgg na donc xamatuma trop ñu muy demee donc da jot message ñoom seen naataango yi ñu bokkal classe seen classe toll ci ñeent fukk jot seeni message ñoom juróom-ñeent jotuñu message bi ñu jotulee message ñu interpellé ñi jiite école institut Lucie Leclerc bu Almati bi ñu leen interpellé ñu ne leen ah dafa yéex rek xam ngeen rek ay ay mbiru xarala ak ñoom seen message yi ne ñëw ñu toog gisuñu dara ñu ne noo xëy na dossier yi moo jaxasoo moo réer ñu toog ñu ne boo am na ay papier ak ñoom seen mujjantel bi nag. waa école bi neleen xam ngeen lan la ci gàttal dañoo lekk xaalis bi waaw seen onze mille cinq cent yi ngeen déposé dañoo lekk xaalis bi yéen juróom-ñett diw moo ko lekk ñoom ñëwaat ci diw boobu kan ñun nag waa FRAPP diw moo ko lekk intéressé wuñu li ñu intéressé mooy diw boobu nga xam ne moo ko lekk école bi moo ko fa teg di ko fay donc diw moo ko lekk école bi na ko lijjanti waaye responsabilité école bi la yow école nooy amee directeur nooy amee surveillant général nooy amee yeneen post ci école élève yi di fay seen xaalis pour def baccalauréat kenn ci ñi ngi fa teg lekk xaalis bi ba déposé wuñu ko office du back déposé wuñ ko ci état du Sénégal donc ça veut que état du Sénégal moom xamul élève yi pour ñii di def baccalauréat ñu jàpp nag ne yoon ñu jàpp nag ne loolu lu garaaw a garaaw la ñu naan déet ñeent fukki élève yépp fay ku ci nekk ñaari téeméer xam ngeen examen baccalauréat am na lu ñuy woowee matière facultative mooy matière yoo xam ne du forcé waaye yow élève da lay neex nga def ko lan mooy intérêt matière facultative mooy point boo am te mu dépassé dix dañ la koy yokkal loolu mooy intérêt matière facultative maanaam boo defee dessin nga am douze deux points de plus yi en tout cas suñu jamono dañ ko doon yokk ñoom dinañ wax ndax ba léegi loolu moo am boo defee musique d'accord boo amee quinze dañuy jël cinq cinq points yi yokkal la ko ci matière forcé yi ñoom ñeent fukki élèves ñu fay ku ci nekk ñaari téeméer pour def matière facultative ci ñeent fukki élèves yi kenn rek moo ci def matière facultative muy doomu directeur maanaam ñoom dañoo lekk seen ñaari junni ak ñetti téeméer frais de dossier baccalauréat ñu naan déet ñu fay ñu lekk seen ñaari téeméer waaye seen yeneen naatango yi nga xam ne dañoo lekk seen ñaari téeméer ñoom au moins yàlla def na kenn lekkul seen ñaari junni ak ñetti téeméer moo tax yaa ngi di dégg bu baax su may waxee ci ñeent fukki élèves yi kenn rek moo si def matière facultative muy doomu directeur école bi donc ça veut dire que 39 yi dañoo lekk ku ci nekk sa ñaar téeméer mais trent 39 yi fanweer maanaam 30 ñoom au moins kenn lekkul woon seen 11500 ñoom dañoo lekk seen 11500 ñu naan déet ñu lekk seen 1000 francs muy ko ñoom dañoo lekk kon seen. ñaata douze mille cinq donc mu ngi nii kon mënuñu def bac defuñu bac ci ay élèves yoo xam ne dañoo jàng octobre ba mois de mai waaye xam nga bu ma waxee douze mille cinq cent ah ngeen ne douze mille cinq cent graw mais douze mille cinq cent graw noon non non non du problème xaalis douze mille cinq cent graw lu tax douze mille cinq cent graaw na parce que ñoom la fekk defuñu bac dafa mel ni li ñu fay octobre ba mois de mais amul benn njëriñ kon kay mënoon nañ toog seen kër bañ a fay xaar déwén frais d'inscription ku ci nekk fay na ko cent mille francs mensualité octobre ba mois de mais ku ci nekk fay na quarante mille par mois loolu mooy lan depuis mois de janvier école bi xamoon na ne lekk nañ ñoom seen xaalis depuis mois de janvier ñu continuer fay quarante mille février quarante mille mars quarante mille avril quarante mille mai loolu yëpp boo ko boolantee loolu yëpp boo ko boolantee mu ngi toll ci 3 millions 922 mille cinq 500 francs li ma jël mooy ku ci nekk c'est ñoom 9 c'est 11 mille 500 ku ci nekk 1000 nga boole ci ku ci nekk 100 mille francs de frais d'inscription fois 9 ku ci nekk 40 mille francs octobre ba mois de mai multiplier ko par 9 loolu moo joxe 3 millions. neuf cent vingt deux mille cinq cent francs euh, peut-être que yokk naa si euh, mille francs yeneen élèves yi nga xam ne ñoom def nañ bac parce que lekkuñu en fait euh, seen onze mille cinq cent donc ça veut dire que école bi ñuy woowee institut Lucie Leclerc bu Almadi lekk na trois millions neuf cent vingt deux mille cinq cent francs wu neuf élèves muy déjà problème mu xaalis bi école bi waxee ne ñun ñoo lekk seen xaalis fayuñu leen seen xaalis delloowuñu leen seen xaalis baaluwuñu leen àq déedéet école bi ñëwul ne ah diw mi nga xam ne ñun ñoo ko nommé ñoo ko tabb mu occupé poste sàngam ci école bi donc moom moo war a ñëw laajte seen xaalis moom ngeen war a jox seen xaalis wala bu ngeen ko joxlee itam moom moo ko war a dem déposer diw boobu lekk seen xaalis te ñun ñu tabb ko donc mënul nekk responsabilité personnelle am na responsabilité individuelle waaye responsabilité également de l'école école bi baaluwul ak école bi excusé wul école bi jéemul trouver solution ba pare di leen di menacer di leen di xoqatal ne leen fu leen neex dem leen du mujj fenn mbokk yi du mujj fenn moo war a jeex ci réew mi nga nekk liggéeykat ñu noot la du mujj fenn nga nekk béykat ñu sàcc sa suuf du mujj fenn nga nekk élève war a def baccalauréat nga am ak say naatango octobre ba mois de mai frais d'inscription cent mille weer bu nekk nga fay juróom-ñetti junni mooy quarante mille ñu naan déet nga joxe ñaari junni ak ñetti téeméer ñu naan déet nga joxe ñaari téeméer matière euh, matière facultative ngir mujjanteel bi ñu ne la naxee mbaay na nga xaar ba déwén seet leen rek lu toll ni élève nga jàng at bi yépp ak sa ñeent fukki naatango nga war a def bac bac jot defoo bac say morom di def bac seetleen ko ci xale ci suñuy doom ci suñuy rakk quel sentiment lan moo war a nekk ñoom seen bopp ak xale ni mu mel lu sa moroom am bëgg nga am lu ko weesu walla minimum la même chose sa naataango yi nga duggandoo école dans quelques jours ñu ne ñu ngi arrosage ndaxte am nañ bac c'est l'occasion d'ailleurs de souhaiter bonne chance à tous les bacheliers du Sénégal fii ak ay fan say naataango ñoo lay invité naan dañuy arrosage dañuy fête ñoom seen baccalauréat bi ñu am fekk na yow dañ la xañ baccalauréat moo tax ñun waa FRAPP ñu ñëw ne ah lii école bi ñuy woowee institut Sainte-Lucie wax doy na waar def doy na waar du dëgg du yoon waaye ñun du ñu yem rek ci école institut Lucie Leclerc dañu naan école nekkul biti ku mbagg école nekkul ku jóg rek nga taxawal sa boutique boobu ana état du Sénégal boobu ana gouvernement du Sénégal boobu gouvernement du Sénégal mu ngi dàqe waa PASTEF boobu gouvernement du Sénégal mu ngi jël gouvernement bi yëpp. ne acca cité kër góor gi mais déedéet suñu doom yi nag suñu rakk yi nag suñu jarbaat yi nag mais moyen yi ñuy jël di tongali waa Pastef di tongali Ousmane Sonko di yóbbu cité kër góor gi mais moyen yooyu nañ ko jël itam ngir suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk yi nekk ci école yi ñu bañ leen nax ñu bañ leen noot lii kon moo ñu fi indi damay fàttali ne damay fàttali ne mbir mi problème mu xaalis la ndaxte nee naa leen 3 euh, millions 922 mille 500 xaalis bu bari bari la ah 3 millions ni kuñ ko ci jox nga commencé sa benn business nga ubbi sa entreprise 3 millions 922 mille 500 kuñ ko jox nga dem aji màkk nga dem aji donc trois cent vingt deux mille cinq cent du xaalis bu ndaw xaalis boobu yépp na ko école institut Lucie Leclerc fay élèves yi donc problème xaalis mu ngi ci problème mu war a def bac defoo bac dafa mel ni tu as perdu une année scolaire c'est extrêmement grave ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem waaye beneen bi mooy foofu lay daanelee dafa am ci sañ-sañ yi ci àq ak yelleef yi lu ñuy woowee le droit à l'éducation sañ-sañ jàng dafa mel ni c'est ñoom seen droit à l'éducation lañu ñu salfaañe or droit à l'éducation article 8 ak article 21 de la constitution du Sénégal day wax ci droit à l'éducation constitution bu Sénégal bi nga xam ne moo wax ci article vingt sept nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs constitution boobu ci article huit ak ci article vingt mooy wax ci droit à l'éducation seen droit à l'éducation boobu la ñu salfaañe article vingt six déclaration universelle des droits de l'homme bu 1948 mooy wax toute personne a droit à l'éducation donc ñoom seen droit à l'éducation la ñu salfaañee c'est extrêmement grave c'est pour ça que l'État du Sénégal est interpellé c'est pourquoi gouvernement bu Sénégal warul toog seetaan lii ministère de l'éducation nationale gouvernement bu Sénégal État bu Sénégal war na dem interpeller institut école institut Lucie Leclerc pour mu wax leen lan moo tax ñuy noot élèves Sainte-Lucie yi di lekk seen xaalis di di gëmloo ne dinañ def bac ñu lekk ñoom seen xaalis élèves yi nag porté nañ plainte élèves yi porté nañ plainte depuis le 30 mai 30 mai fanweeri fan ci weeru mai la ñu déposé seen plainte 30 mai 30 juin 5 juillet xam ngeen ëpp na weer depuis boobu dossier bi avancé wul non depuis boobu dossier bi avancé wul waaw ndax lan parce que ñu ngi tudd Rougui ñu ngi tudd mais Xarjata ñu ngi tudd Adja ñu ngi tudd Saabali tudd ñu aji Sarr bu ñu tuddoon aji Sarr dossier bi ba fàttaliku leen dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr deux mois ñu àtte ko àttewaat ko yaa ngi di fàttaliku pour coowal viol nga xam ne dossier bu compliqué la ndax am na sëy ndax am na lii ndax am na laa mais bii dossier mooy lan fay ngeen waaw ana xaalis bi ah ñoo ko lekk dossier boobu yomb naa régler 30 mai la ñu déposé seen plainte 30 juin muy un mois ñu ngi cinq juillet waa xanaa ñii amuñu ay droit xanaa ñii amuñu ay sañ-sañ